waa Chine ñi ngi jeex de instant ñu ngi jeex benn sénégalais bokk <laughs> voilà ñu daal di dugg nag site bi di Dakar Buzz Dakar Buzz nag dikkaat ci coow bi nga xamante ni am na ci Miss Sénégal bi mhm. yaakaar naa sànq rek yaa ngi koy brossé mhm. euh, ki nga xamante ni nag moo gagné couronne bi di Fatima euh, Dione mhm. euh, dëkkee fële nga xamante ni moo di ca Fatick donc mu mel ni récemment gis nañ ni que dañ koy lynché bu baax li nga xamante ni moo di réseaux sociaux yi ku ci nekk di jug nag nekk elle est pas assez belle pour représenter ñi nga xamante ni moo di la beauté sénégalaise donc def na benn entretien ak euh, site bi nga xamante ne moo di Dakar Buzz moom nee na ko bu ñu demee ba tànn ko mhm. c'est parce que dafa répondre ci critères yi nga xamante ne moom la ñu doon ut te it elle pense que elle n'est pas euh, en fait elle est assez belle pour mhm. euh, représenter ñi nga xamante ne ñoo di Euh, sénégalais yi donc euh, loole nag ku ci nekk àddu si ñu ngi siit ni l'international bi nga xamante ne moo di Youssoupha Camara moom it génn def benn post ci page Facebook am di xam ne ni comme moquerie bi nga xamante ni euh, sénégalais yi dañ koy def à l'égard de Fatima Dione loolu dafay wane rek bassesse yi nga xamante ni africain am na ko rawatina mm-hmm. sénégalais parce que dafay yàqamti tout le temps ñuy joxañ baaraamu tuuma kenn ci seeni père ngir ñu daal di jug nag di ko di ko xas donc mu mel ni nekk na lu doy waar li nga xamante ni jamono ji lëmbe bu baax réseaux sociaux yi mm. ci affaire Miss yi nii euh, euh, critère. Euh, de sélection. critères yi nee nañ ko taille bi si la bokk mm-hmm. couleur de la peau si mais mm-hmm. aussi li nga xamante ni moo di niveau intellectuel bi culture générale yi yooyu yëpp dañ ciy jël en mm-hmm. compte je pense que euh, je m'excuse mais par rapport ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy comité bi bi géré bi Sénégal en tout cas pour cette année moom bu fekkee ne dañ doon wax ci culture générale je pense que ñu dañ ko dañ ko raté carrément parce que si quoi que l'on puisse dire c'est vrai elle benn entretien nee na que ni euh, nekk Miss Sénégal ça veut a rafet Mm-hmm. c'est vrai mais aussi sénégalais aussi li tax ñoom ñëpp ñu ñu ñu ñu euh, mu am comme benn genre révolution bu am euh, c'est-à-dire que jour boobu ku seetaan élection mi Sénégal mm-hmm. tu sais que ça amul lu sérieux lu ci ama ah. mm-hmm. il faut dire la vérité telle qu'elle est donc je pense que année bi dina tax l'année prochaine dinañ am ay critères yu gën a baax et puis voilà ñu am ay nit yoo xam ne vraiment fu ñu toog ñun duñu duñu rus daal waaw c'est vrai niveau culture générale bi moom dafa dafa wàcc complètement bu ñu génnee beauté bi culture générale bi moom man je vais dire que c'était ay ay émuse la ah. moom sax bi elle s'est expliqué le fait que mu wax loolu instant boobu mu ngi amoon trac gagné na yëf yi xamul fu mu nekk mm-hmm. journaliste yi ñëw tiim ko dafa tiit ba wax émuse et elle s'est mm-hmm. ci yooyu mais aussi côté beauté xam nga la mooy problème bi ñun dañoo tàmm gis ay Miss Sénégal yoo xam ne dañoo xees de ce ah. fait dañoo dem ba foog boo xeesul rek waroo nekk Miss Sénégal en tout cas man moom j'aime bien que ñu am Miss Sénégal boo xamante nii peau noire la la am et puis jóge fële dëkk yi nga xamante ni kenn xalaatu koon man mm-hmm. loolu j'ai apprécié ñu ngi koy félicité bu baax a baax et puis la beauté elle est relative aussi man ah, mën naa gis ni dafa rafet yow nga gis ni ah. dafa ñaaw <laughs> ñi nga xamante ni aussi elle se ah, trouve jolie aussi bu ñu toog seen kër toog rek di critiquer nañ dem euh, euh, ci jongante bi ku ci wóor sa bopp dema peut-être que dina gagné man dégg naa euh, kii xam nga ci ci Dauphine yi mhm. kenn ki bi sax mu ne moom moom dafa gëmoon ne mooy gagné. mais kan mooy jógee sa kër coach dem si jongante naan doo gagné. dëgg la ah daal xam nga lan la euh, affaire yi daal man. Mhm. dama ci jàpp daal mooy. mooy li Fatou Ka wax sax xam nga nag euh, c'est que miss daal. Mhm. ci entendement nit tam miss mooy ku rafet. waaw. mais moom elle n'est pas vilaine. Ah, bu ma dugal ne. waxuma ne bu ma dugal ne. Sénégal dafa ñaawul ci boppam. ragal man ragal ma waaye bu ma dama ne. Euh, dama ne. Euh, coach temps bi jeex ñu jaar ci ah, beneen ci beneen euh, info sax. bu ma dugal ne ci waykat bi nga xamante moo di Oumou Sow nga xamante ni day waajal ngir féete li nga xamante ni moo de vingt cinq ans de carrière am. par la suite nag waa fas yéene ko defee fa li nga xamante ni moo di Daniel Sorano. Mhm. mais ñu gis nag ni polémique bu rëy dafa am ci. Euh, événement boobu nga xam ne mu koy waaj parce que dañ nekk dafa dafa daal di nag parrainé mm-hmm. benn homosexuel bu célèbre euh, ci ci soirée boobu noonu daal di koy nag tuddee li nga xamante ni moo di bis bi mm-hmm. moom nag euh, gannaaw bu ko site internet yi interpellé moom nee na ko carrément moom du def distinction entre kii góor jigéen la wala kii euh, góor la simple wala jigéen la moom l'essentiel da nga nekk nit et rapport yi nga xamante ni moom la am ak nit ki mooy tax mu ñëw nag parrainé la wala mu tuddee la li nga xamante ni moo di événement am donc dem na sax bay xam ne ni que moom moom mooy li nga xamante ni moo di liste bi ki nga xamante ni moo di Boubacar Diallo mhm. euh, DJ Boubs mooy mooy dressé li nga xamante ni moo di liste bi bien que moom dina ko wax ni que bëgg naa ñu tuddee ko kii ak kële mais nee na que li nga xamante ni moo di sénégalais yi dañ koy wax di taxé ñi nga xam ne ñoo di góor jigéen yi moom loolu san san l'intérêt intéresse pas mm-hmm. rapport bi nga xamante ni moom la am nit ki loolu rek moo koy tax mu daal nag tuddee nit ñi di événement o d'accord maa ngi ko déglu naa ko ci ci entretien bi mu ngi naan ñoom artistes yi dañuy am façon nit bu nekk dañuy am ay nit ñoo xamante ni seen xel wérul mm-hmm. seen ay seen ay xarit lañ dañuy gis façon nit bu nekk euh, yooyu noonu mais aussi jaaxal na ma trop liste bi le fait que mu am fuite parce que liste boo xam ne génnagul publicité bi mm-hmm. jàllagul ñu ne dafa la ñu la ñu wax que moom la moom la dafa bokk ci xaw ma parrain la xaw ma mm-hmm. marraine je ne sais pas <laughs> voilà mi ngi noonu en tout <laughs> cas dañu xool bu liste bi génnee ndax ndax ndax am zozo da ciy bokk bokk <laughs> ou pas parfaitement ah, ñu négandiku loolu donc euh, yaakaar naa dañuy daal di jàll ci information bi nga xamante ni dafa dikk ci ki nga xamante ni moo di mun nañ leen ko tuddee noonu Marie-Louise ak euh, mm. keneen ki nga xamante ni moo di Racky Aïdara mm. yaakaar naa si suba rek on en parlait donc mu nekk ñaari nit yoo xamante ni jamono ji elles font le buzz euh, Racky Aïdara nga xamante ni dernièrement rek gisoon nañ ni elle s'est ak footballeur bi nga xamante ni moo di Babacar Dieye donc moom elle s'était mariée avec lui mais dañoo gis ni si néegi ni dem dafa am benn audio bu bu fuité mhm. je sais pas ndax dafa fuité wala ki nga xamante ne moo di Marie-Louise moo ko dugal ci internet bi Marie-Louise moom nee na que euh, dafa woo en fait benn entretien téléphonique la Marie-Louise moo woo kii di ay dara mhm. di ko euh, xamal que euh, Racky Aïdara dafa nekk di wax comme quoi moom Euh, fii bu mœurs légère la dafay mhm. nekk di taxawaalu ci mhm. ci hôtel yi mhm. di euh, fanaanoog ñi nga xamante ne ñoo di góor yàlla yi donc euh, Marie ki nga xamante ne moo di Racky Aïdara moom bi répliqué. nekk ko moom musul wax loolu lenn la musa wax mooy que kii di mari louise dafa nangu ki nga xamante ne moo di copain wam mm-hmm. et que ñëw nañ ba si moom ne ko dafa fanaan ak ki nga xamante ne moo di copain wam ci ci benn hôtel de la place mm-hmm. donc mu nekk mbir mu doy waar bu nga xamante ni jamono yi réseaux sociaux yi ñu ngi koy ñu ngi koy waxtaanee et nekk na ñaar ñoo xamante ni ñu ngi ci devant réseaux sociaux yi ak di fi nga xamante ni moo di plateau télévisé donc ci ay kàddu kii di Marie-Louise sax xam ne na ni que bien que Racky Aïdara était marié récemment mais mm-hmm. téléphone bi nga xamante ni moo ko yor kii di Cheikhou Kouyaté moo ko ko may donc moom gëmul dara et puis référence ci jamono ji mu mel ni daa nekk na tamante dëmb bu nga xamante ni mu ngi seen mm-hmm. diggante. te wax nañ ba tudd si Cheikhou Kouyaté borom borom ñaari galon yi comme mm-hmm. ni ñu koy waxee en tout cas euh, euh, euh, polémique bi nii baaxul ci nga xamante mooy ay dara parce que même pas 15 jours de mariage ñu ñu dégg ñu dégg polémique yi nii ci ci moom bon rafet rafetul daal rafetul et que showbiz bi daal wax dëgg yàlla war nañ xamal sa morom nga daal di koy génnee ñoomi nen la euh, Salma Ibrahima Fall ñu ngi lay euh, may remercier yu mucc ayib maa bu baax a baax d'accord soo paree nga seddi ci teranga yooyu lay xam naa ne sax am na moo jox nga daal di ko bokkaale ñu ngi lay jaajëfal bu baax Salma di la jox rendez-vous mercredi incha allah ci yeneen actualité people di remercier aussi yéen ñi ngeen xamante ni depuis ce matin yéen a toogoon di ñu seetaana ah. Diatou Diop Soft moo jaar ci kanam yi comme d'habitude féetee fële ca Parcelles Assainies unité 20 merci beaucoup Diatou Eva Nassoura Chop Fatou Sow moom aussi nekk fële ca Guédiawaye moo génn fii ci habillement bi comme ni ngeen koy gisee semaine yi passée son numéro c'est le 77 178 06 82 mi ngi fële ca Guédiawaye Eva Nassoura Shop merci beaucoup. salon Sukay coiffure moom ma firi nii daal di ma defaral sama bopp bi comme ça Sukay sama grande sœur boobu lee merci mère Ngoone kan di yaayam kooku sama yaay la mais li ma métti mooy dafa nekk fan su coach heure bu ma fa demee mu may laaj coach métti na ma trop mère Ngoone kan jërëjëf yaay booy dundal ma say mbay di baawaan c'est à Ajaratu Penda Diallo Gueye ak euh, tonton Serigne merci beaucoup ci ni ngeen di jàpp nekkee si liggéey bi ba mu yem. daa penda nee na dafa bëgg nga wane ko wane ko mi ngi noonu. ñu ngi leen di jox rendez-vous demain incha allah à demain mi ngi noonu. ok à demain incha allah.